oustaz salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah barakaatu Hadj Babacar delloo naa la nuyoo beeg ziyaara bi. waaw eh, oustaz ci yóbbalu bi. ji yóbbal bi dafay ñëw rek ci ñaar yu am solo ci dund jullit. te ñun suñuy tayel. walla suñu bëgg lu yomb. dana tax ñu sàggade ko. bu njëkk bi Hadj Babacar mooy teel a dem juma. dafa bokk ci li wolof doon firi di wax ni. séddale ca kuddu yu jëkk ya yonent bi def ko misaal ci ni boo teelee dem juma yaay ton ni cër bu rëy ba ki mujje dem juma mooy jël cër bu ndaw bi te nit bi bu teelee dem juma toog di tudd yàlla ànd imaam bi déglu xutba bi julli yàlla mën na ko fompal bàkkaaram yépp ci teel gi mu teela dem te dana màng yiw bu bare bari kon teel dem juma sunna la boo xam ne ñu ngi koy sàggane kon jullit ñi war nañ ci jël beneen matukaay Haji Babacar bi ci des mooy gunge néew gunge néew ba joo ko ci paxam Haji Babacar sàggane nañ ko ndax li ñoo tuddee levée du corps te gunge néew tuyaaba ju rëy moo ca nekk ànd ak moom ca waaj ba ànd ak moom ba jébbal ko boroomam doog a dellu si Haji Babacar ñaar yii daal ñu ngi koy sàggane te jullit du ko sàggane ndax tuyaaba ju rëy la Haji Babacar jërëjëf Oustaz